jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal naa leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg euh, GCB ñëwati nañu nag euh, fi ñu daan ñëwee ànd ak ki ñu daan àndal nga xam ni foo tuddee turam daal di teg alxuraan muy Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan tey jii la nag émission bi spéciale la ginnaaw bi ñu duggee ci weeru safar ñëw ci kër sëriñ bi yendu si gannaaw bi ñu ganalee ci ay bernde gannaaw bi ñu toogee mu waxtaan ak ñun ci alxuraan ñan laataa ñoo def émission bi nga xam ni toog moom ci ab jataay daf lay may lu baree baree bare yee ci sa xol ci yàlla ci alquran ak li fi mag ñi bàyyi woon loolu nag muy lu am am solo loo xam ne dund nañ ko ci bésu tey bile bésu tey bile itamit daa ngeen ci am lu am solo muy loo xam ni lenn ci ay sarax yu mu amal defe naa ne yéen a ngi seen loolu nga xam ni mooy li mu jënd def ko ay sarax jox ko jaamu yàlla yi bernde ñu ci ñu àndandoo ci tey jile waxtaan ci waxtaan yu am am solo daan ci dikk maa ngi émission bi nag koo xam ne moom tamit wax naa leen ko dafa bokk ci sama ay professeur ñu ànd lu bare bare bari ci àddina dama koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk yi ñu doo a digg ci waxtaan wi taala ñu bàyyi la nga nuyoo jërëjëf auzu billah bisimilah ini wali yàlla jërëjëf borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baal matu dina Cheikh Madul Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàggul lool te wér ak njabootu seen Tuubaa geek mbooleem xalif généraux yi ne ci biir réew mi siyaaraat bu baax a baax mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu émission bi rawatina nag di topp jotaayu xam-xam bu ni mel di la kenn ku ci nekk rek euh, dellu si waat nañ jox la loxo suñu loxo ne la jàpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaye nuyu itam Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan mi nga xamante ni wax dëgg yàlla wax nga ko bu ñu ko toppaatee dañ koy daal di limaat ci teraanga ji nga xamante ni defal nanu ko bi mu waajee ba tey ji jàpp li nga xam ne jàppoon na ko naa la ko ci weeru safar wu tedd bi macha allah rabbi li ci kanam rawuli bët incha allah rabbi ñu a leer incha allah ci lay siyaare waat bu baax a di la tam sama borom doon laa taxaw te yeggali mboolem say mébét ak say na ci rajo yonent bi alayhi salaatu wasalaam aywa jërëjëf Serigne Talla ginnaaw bi ñu la jaajëfalee kon nag ñu dalal cheikh bi cheikh Ibrahima Ndiaye alquran ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi ñu bàyyi la nga nuyoo ak waa àddina aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa inni u'isuha bika wa suryatiha min aseytaani rajim rabbi a'uuzu bika min amasati sayatin wa a'uuzu bika rabbi an yaqduroon wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyul azim sëñ soxna bu ñu ngi lay fay nuyoo Baay Taala ñu ngi leen di fay nuyoo di leen dalal di leen wax ne bisimilah mën nañoo commencé liggéey bi mhm. jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran fi ñu commencé nag euh, liggéey bi mooy dañu gis nga jënd gëleem defar ko daal di koy séddale jaami yàlla yi mu mel ni loolu dafa am xëy na peut-être loo ci jublu wala ndax danga ko daan def safar gu jot wala dafa bokk say habitude di jënd ay gàtt di ko def ay sarax waaw bu dee giléem gi ma doon def ay sarax nag moom hmm. dafa bokk ci système mu liggéey bi hmm. ab jaamu yàlla laa doon am lu ma koy liggéeyal hmm. mu tombe ak safar gi mu liggéey bi laajoon giléem ma rey giléem gi séddale ko jaam yàlla yi waaye jëmmi giléem gi ñu rey moom wàllu liggéey la boo xam ni hmm. daa koo ko doon liggéeyal hmm. euh, mel na mbokk tal bi nekk Amérique ci ay mbiram hmm. waaye nag safar gi nag moom yéen yàpp xar laa defal safar <laughs> bay taal mën na ko leeral waaye jëmmi gileem bi moom ci wàllu liggéey la jaaree daal liggéey moo ko sawar sëñ ngi noonu léegi ñu bëggoon a xam maanaam gëléem ban pouvoir la am ci wàllu sarax ndax dafa am lu mu ëppalee nag ak xar ginaar ak béy ak yooyu ni mel ban pouvoir la gëléem am waaw gëléem moom daa am lu mu ëpp leen nag ak xar xoolal gëléem rek tollu ñuy bagaas mhm. da nga mos a dégg nagu yonent bi war déedéet xar mu war déedéet yonent bi leen rek ko at noonu muy gëléem mhm. gannaaw gëléem wax nañ ne alburax kon kay ay secret ci moom la yam te mboolem mala yi yàlla bind dinañ fattu saf gëléem dara mënu koo fatt te gépp leeru yàlla gooy topp war giléem di nga àgg ca leer ga nga fàttu ci yoon wi te bu àggee tëddal boppam du ko weesu kon giléem bari na ay secret ci yoonu ñaan am na ay secret waaye ci yoonu àdduna tam am na ay secret ndax lu suñ borom daxañ la ci moom lu moom giléem ci boppam jërëjëf bi bala ñoo passé nag sëñ Talla dama am lu ma ko bëggoona laaj en tant que nit koo xam ni xëy na am na fu mu féete ci wàll tarixa Euh, sa salle bi defe naa suñu techniciens yu xarañ dañ ñu ko wan dama fee gis euh, photo Cheikh Omar Foutiou Tall. Mhm. ma bëggoon a xam sabab bi lan la lan moo la booleeg Cheikh Omar Foutiou Tall. waaw xam nga Cheikh bii nii sax ñu bari dañoo waa wax ni kii ab taalibeem la. Mhm. senegal yi nag dañ koo jàppe woon jëmmi Cheikh Omar waaye ñii dañoo wax ni ab taalibeem la. Mhm. Euh, waaye bu dee wàllu Cheikh Omar Foutiou man nitu yàlla yi mboolem awliya yi yëpp am na lu ma boole ak ñoom mooy kàddu yàlla gi ñu doon doxal rek lay doxal dara wutewu ci euh, loolu moo taxoon ma defoon fi foto bi waaye nag bu dee ci jëmmi tarixa taalibe Sëriñ Tuubaa laa ci tarixa murit laa jokk waaye nag teewul lu bare bare bare bare bari ci yeneen tarixa yi yàlla defal na ma ci gëstu ak xam-xam xam naa ci mbóot yu bëree bëri daal mbóot yi ma ump ci tarixa yi ñuy doxal fii ci réew mi moom bëriwul bëriwul waaw bëriwul jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ bi ginnaaw bi ñu duggee ci loolu sëñ Talla xam naa dañ lay bàyyi kàddu gi balaa loolu dinañ ñëwaat ci benn laaj boo xam ne ci génn góor goo xam ne mi ngi woon ci réew mi am xam-xamam di am ñu muy na ci xam-xamam ginnaaw yàlla tey jile seex Ibrahima Ndiaye alxuraan mile moo daaneel góor googu ginnaaw bi mu jëflanteeg benn ci ay jël ci moom alal ju bari te loolu góor googu ba muy def loolu muy passé dafa doon jëfandikoo xam-xam ngir mën a def loolu loolu nag dinañ ñëw ci loolu nan naka la ko daanelee naka la demee ba jëflante xam-xam euh, bu ñuul ci góor googu la ba récupéré waat taalibeem boobu loolu daan ci ñëw dañu lay bàyyi kàddu gi rek nga ñëw ak moom ci ay laaj sëñ Cheikh Ibrahima bëggoon xam gilleem ci ki nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal ba gilleem gi am ci yoon ban yokkute ci yokkuwaay la mën a jële ci liggéey ba nga koy liggéeyal maanaam saraxu gilleem ñu defal ko doomu aadama ba lan lay yokkoo moom ci àdduna waaw wàllu alal juy dem ak wàllu tawat ju yàgg doomu aadama bu dee daa dem ba maîtriser tul alalam ni muy demee tax xam na ni ñàkk jomam taxul alal ji dem moom jàmbaar waaye alalam a ngi dem mm-hmm. saraxu gileem lu koy téela ci kaw nag nga xam yoon wi ndax sekkërëb gileem ak sekkër basma la ñoo ànd gileem léppam ci faataxa lay dox mm-hmm. yaa ngi dégg moo tax sax ci juróom-ñaari lay dox mooy génn sarax bi da nga koy natt ci limu kun muy soixante-dix bu dul lool rek du jàll wala soixante-dix bi du ci topp da koy multiplier waaye daal koo gis tawat ja yàgg nanguta dañ buñ ko jaaralee ci saraxu gileem tawat ja dañ képp koo gis tamit alalam di ko wan ginnaaw di dem mënut a yokk buñ ko jaaralee ci saraxu gileem alal ji dem te du taxaw kii ma ciy liggéeyal nii ci wàllu alalam ju jum soxla mu yokk laa ko ci liggéeyal ndax dafa yor ay entreprise yu bari États-Unis waaye entreprise yi dañuy wàcc ragal naa ni bu ñu defaatee émission fii ak six mois di nga ko woote dina la wax fi mu toll. noo ngi koy nuyu bu baax a baax baax wax dëgg yàlla lay maxtaar macha allah rabbi waaye bokk na ci kon tey jii fi ne sëñ Cheikh Ibrahima man tey jii bu ma fexewoon ba nga defal ma saraxu gilleen gi moom moom bésu tey moom fi ne jëm kaw moom fi ne sama alal moom day xel di yokku rek waaye dootul wàññeeku. waaw xam nga booy sàkku xam toog sa kër doo ko am waaye bu ñu la yóbboo daara ja ñëpp rafet njort ndax boo jéemut a xam ne di nga dégg mooy ki am jafe-jafe toog di xool li koy saafara gis bu àggee ci li koy dindi nag na am njortu dañ ñàkk dañul nag defal rek daraxu giléem bi moom képp ku ko defal ngay nit hmm? mënoo ñàkk donte dañ lay xeex ci nga ñàkk sax doo ñàkk yow da ngay am ndax sekkare la bu jógee ci suñu borom di wàllu leer ñu koy liggéey ci alxuraan lu ne dégg fee rek wala luñ far wala luy bind bàyyi ko fi ay mag donn ko sekkare bu wér la bu wóor boo xam ne rawxaan yi ngay liggéeyal sax ci biir dañuy waxee ak yow ngay dégg waaw du lu ñuy lam-lammee daal bay taal macha allah jërëjëf Cheikh Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye leer na loolu waaye wax nga ko léegi ci sa biir wax borom tawat ak ju yàgg tëdd ndax bitim réew Amérique ñu gis fa xam ne dañu feebar ba hôpital ne leen seen dund li ci des matatul ñaari weer nga garanti leen ne leen gisaguma faatu ci yéen ba ñooñu tey jii fi mu ne am ñu tawféex ba ba dugg si ci réew mi ak yeneen xeeti feebar yoo xam ne am nañu ko fa amee woon hôpital mënu ko woon a gis nga garanti leen est-ce que kon sa kër ba tam dafa daal di làmbaawaat ci gileem ndax wax nga ñu léegi ne gileem euh, day day day saafara saraxu gileem day saafara tawat ju yàgg wala ju ju ju lëndëm. Mhm. xam nga sooy ba mi ngi laaj lan moo la lien ak Cheikh Omar Fouti mu ngi noonu wan nuuri ak wani mu takkawinatil adam yi loola kay saahibul xaqi rabbaani sawaay wala mhm. dégg ko wax bi dama mhm. ne wan nuuri mu takkawinatil adam te ci leeru yàlla nag ci la ñuy dimbali ku mën a doon mhm. yooyu nee naa la duma ko wax ndax yàlla mi mi koy def sax waxu ko ci alxuraan daf ko nëbb kon dama koy nëbbale waaye daal wan nuuri ak wani mu takkaw natil foo déggatee loolu ne Cheikh Ibrahima Ndiaye nee na saahibul haqi rabbani jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima loolu tamit leer na xanaa ma dolli ci benn rek door a door a a jox sëñ sooy bu ndax euh, laajoon naa ko dama koy laajaat sëriñ su bëri dañuy wax ni ñaanal ku nekk bitim réew ak ñaanal ku nekk ci biir réew mi fii ban moo ci gën a jafe ma wax la ko nga ne ma la nga leen ci tontu woon indiwaatal ñu ko ndax ba léegi am na ñoo xam ñi ci am sikki sàkk ñi ci am jiixi am ndigalu yàlla suñu borom loolu ñu ci wax dina ñu doy te dana doy askan wi xam ne tam ñu ngi lay seetaan macha allah. dama ne ki dee nekk ci biir suuf ñu ñaanal ko mu jot ci. asantuma la ak ki dund na ci kaw suuf si. sooy mhm. mhm. bu boo gisee ma ni ko lu ñuy wax nañ ko teg ci xam-xam xam-xam a gën ñun yàlla mi ñu ñaan daani fii fu ne mhm. yàlla fu mu ne karaw bitim réew di yàlla fu mu ne yàlla ardi waaw yaa ngi dégg maanaam yàlla dafa am espace wala dafa am fu ñu koy natt wala yàllaa ngi fépp waaye daa fooy jëm fekk ko fa wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ardi waaw nee naa la yàllaa nga ci kursi yi kursi yi nag fu ne ci kaw asamaan yent bi mu riñaan fan la dem daa dugg ci biir suuf si hmm? daa dem ci kaw asamaan fekk yàlla la nekkal foofa yàlla nag gépp ñaan fa la jëm mhm. hmm? suñu boroom nag comme moom lañuy ñuy ñaani junne yi bañ daan déglu ji te mën a dégg kàddu yàlla bu ñu jógee duñ jëm ci biir yi ci kaw asamaan si lañu jëm waaw hmm? Seydina Jibril da nga mos a dégg ñu la day génn day wàcc rek ngay dégg fu mu jógee ci kaw waaw hmm? ah, yow yow jëmeel sa bopp ci yàlla ji ci kaw bis boo waree jëm ci suuf moom gars yi bu leen neexee bu la naqare yëpp di nga jëm ci suuf <laughs> hmm? Mhm. ndax allazi xalaqal mawta wal hayata loolu la alxuraan wax mhm. waaw kon yàlla dañ koo xam ba bëgguñu xuus ci étape boobu ndax nit ki il faut mu àgg ci domaine booy mën a waxee ak moom ci loolu mhm. waaye daal ñaanal ku nekk fii ci biir suuf si laa la wax dee faatu bu yàgg mu ciy jot bu dee kookaa mën a jot wàllam ausuntu wala kii dund laa la wax te soxla te moom lañ moom lañ ñaanloo kon ñaan fu waay nekk mën na cee jot ñaan nag am na yu nangu am yu dul nangu. Hmm. ñaan. Hmm. yàlla mooy maye waaye du lépp lay maye de. yéen di ñeen ko leeralal kuy ñëw ci yéen yéen da ngeen ñaan rek. déedéet dama ne yàlla mooy maye waaye du lépp lay maye. waaw mais léeg kii ñëw man mi ñëw li ne sëñ bi damaa bëgg dama sama soxna si daf maa rëcc damaa bëgg tukki damaa soxla lii du ngeen ni ko yàllaay maye da ngeen naan ko maay maye. déedéet sëriñ bi wax maay maye kay amul. Hmm. yow booy maye boo fi jógee kuy maye loolu dëgg bi su ma su may maye su ma fi jógee kan mooy maye dama ne sëriñ bii maye bu fi jógee kuy maye tegoo sa bët sëriñ si dee ñu leen di suul nii ñoomi bàmmeel waaw ñoom bi fi jógee kuy maye yàlla waaw kon yàlla mooy maye sëriñ day jokkale doomu aadama ci boroomam mm-hmm. waaye amul lu muy wane ci boppam koo xam ne sa yaramu bopp dong mënoo gis lépp Mhm. waaw. Hmm? sa yaramu bopp rek mën a gis lépp. da ngaa mos gis teg bët yow nit ko gis léppam. déedéet. loolu doy na waar xam nga nag suñ bi rek may dugal ci affaire xeetu xaw affaire yu xóot yoo xam ni euh, loolu d' accord loolu nit mënul gis féppam ndax dañ koo bind. ki ko bind moo fi ne même bu ñu ko fi bëggee jëlee moo fi ne. alquran du wax luy waxantu yàlla yow yaay raay wax daa am jot googu danu yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wala amru yow ma isin lillahi loolu nag ku gëm ñun moo am ku gëmul moo am waaye yàlla teel naa xamal waa àdduna ni leen nit ñi ak junne yi dañ may fenal te ba yàlla di wax loolu waxu ko ay sëriñ rasulullahi la ko wax ngir mu wax ko nit ñi ku tardé yaa fi bàyyi yàlla waaw ah, waaw yàlla tardé lul kenn ku tardé yaa fi bàyyi yàlla nekk ak lu dul dem tardal sa bopp. Mhm. dégg wax bi waaw. ñu génn foofu ndax foofu lisaanu xaal nga dugg ci question bi ñu continuer waaw mais foofu baaxoon na suñ taala foofu ba tey baaxoon na te dinañ ci ñëwaat ay yeneen i kii parce que man foofu ma ñor mhm. ndax dafa am na suñ taala nit ñi fu ñu toll mhm. cheikh bi lii muy wax loolu la ñu soxla c'est-à-dire nit ñi dañu dépassé xam-xamu terre yi lii bu la jàppee nii la lee dal lii loolu nga xam ne man ku ma toog jox ma une heure de temps ma wax ko mais lii la soxla ci nit koo xam ne danga wax ne nit ki dafa ñëw am aajo digganteem ak borom connexion la soxla bu amul connexion nag xam-xam bii ma wax la soxla kon am na ci loo xam ne vraiment moom la ñu soxla ci moom li tax ma gën koo ñemee loolu ci la bokk tudd nga ko léegi muy caay-caay goo xam ne ay nit dañ koy def ñëw mu mu dindi mu dindi leen bi foofu la ñuy déparé euh, sëriñ bi dafa am koo xam ni ñu ngi koy woowee Pape Cissé mm-hmm. mu jàmbaare woon lool ci xam-xam bari woon xam-xam lool ci fànn yëpp doon daaneel ay boroomi xam ay boroomi xaalis ci xam-xamam di jëfandikoo seen xaalis mais keroog bi mu ne bi mu ne cocc sab taali bi ci lañu wax ni ci nga ko daaneel mhm. nan nga ko daaneelee ak lu tax nga daaneel ko waaw jëm jooju ñuy wax Pa Cissé mi ngi dëkk fii Parcelles Assainies ñëpp a ko xam mhm. mbooleem kilifa yi ci réew mi ñi ñi may waxe waxam bëriwul mhm. ndax du milaar mag la kilifa la te ñi mu jàngal lasaraar rek mën nañoo la jël réew mi ah man nag yàllaa kon nattoo sama jëmm man ko ndax Baay mi toog na fi ma ne ko man lijjantiwu ma ko jàng waaw sama kër gi moom ku jàng ku jàngul yépp ku bëgg sa aajo faju di nga fi ñëw ndax man yoruma loo xam ne am jàng koy maye jàng naa nag naam waaye bagage yi ma yor moom hmm. ab jàngkat bu ñëwee moom na teg ne am jàngam ndax mënuma cee jaaxal Pa Cissé nag bi mu laalee sama taalibe ah mu ñëw expliqué ma ko ni mu waxee ndax Pa lan moo nekkoon liggéeyam. moom mooy commerçant yu mag yi lay dem ci ñoom jox leen sànce kër fexe ba am relation ak ñoom commencé leen a détourné bis bu la takkee ba jàpp la moom. waxuma la yow li nga yor nga jox ko ko waaye li sa moroomi commerçant yi yor sax boo demee laaj leen ko dañ la ko jox nga jox ko ko. ndax li mu jëloon ci sama waa ji ci alal tolloon na ci cent quatorze millions. waaw bi sama waa ji ñëwee wax ma ko nag ñu dugg ci oto mu nett li ma lépp ni demee dama ne ko man dama wàcc oto bi kon neel ñu dem kër Paal Cissé li lay xamal ni góor gi dafa ami xam-xam te dafa yéeme. Mm-hmm. biñ ñëwee ba buntu kër gi góor sa waaye dafa toog mënatu la jug ndax bopp bi metti. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaye teewul àgg naa moom ba ci biir kër gi. nuyonteeg Pape Cissé waxtaan ak moom laaj ko lan la séq ak sawaay moom ci jëm ci saa si mu weddi ni ñu dara waaye nag man dama ko xamal ci saa si ni ko xam ma séq ngeen xam ma séq ngeen waaye xaalisam bi nga ko jël moom mu neex la ak mu naqari la di nga ko joxe waaw bu dee wéeru nag ci xam-xam ba jël xaalisam dinaa wéeru ci xam-xam noggatu la ba nga génne xaalis bi ci mu neex la ak mu naqari la mhm. àndoon na ceeg yeneen i sëriñ seeni tur dafa nekk ay turu kilifa te bëgguma dugg ci yooyu mhm. ndax dañoo bari njaboot waaye amoon nañu ko ci jàppale woon caacaay googu mhm. lañ comme li ngay laaj ñu mhm. xam ci réew mi ñu ay kilifa nekk ci ginnaawam moom ci ñoom la gënoon a wéeru sax moo taxoon pëlis daa ko mën a daaneel waaye daal fi mu ne nii parce que na xaalis bi ca kaw la ma ko waxoon mu neex ko ak mu naqari ko nu nu mu ko fayee nu mu ko fayee damaa jëflante moom ci bàttin kenn mënu woon ko yëkkati bu yóbbu ko ci yoon sa wàll yëkkati ko yóbbu ko ci yoon. d'accord mais kon sëñ bi yow da ngaa yor bagage yu jóge fële te réew yële ma xam wala yow bagage yi alxuraan nga yor wala loo ba daaneel koo xam ne li li mu yor ci xam-xam ñi mu jàngal rek ne nga mën nañoo yëngal réew mi yow nga dem yëngal ko yow bagaas yi loo waaw man nag seetaanuma sama bopp duma la ko nëbb sëriñ bu mystique laa oh. mystique naa trop te xam naa ko te itam teel na maa mystique. Hm? Hm. yàlla dimbil na ma ay jamono demoon naa ba yaakaar ni Sénégal ma ëpp lu ma fi werd wala maa fi dàq werd waaw tur yàlla waxuma la li may li may liggéey rek ci ay tur yàlla hm. waaye menn man dong mën na maa waat ni Sénégal maa fi daan werd jawharatu kamal bii secret tijaan yi junni yoon par bis xam loolu du lu ndaw da koy laaj tiijaan yi lan mooy jawharatu kamal ca jamono yi may werd d'accord Euh, fanweeri réew ak ñaar yu ma dem yuñ la mën a limal amul menn réew moo xam ne dama faa demoon di fa wut lenn lu dul xam-xam mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. xam-xam yi ñuy wax ni ci réew mi yëpp laa maîtriser te xam-xamu nit kese yoruma ko wax naa la ko nee naa la maîtriser naa ay xam-xam yoo xamante ni si nii ci mala yi la jëm mala yi bu bu balaa wàcce ci seen kaw bu leen di war wàcc laaj wàcce ci seen kaw nit ci nit yàlla yi di amee droit noonu laa ci amee droit noonu tamit lañ may informer may jug jëm ci ay saafara moo xam ay sarax la wala ay sikkar la ay tur loolu beneen xaal la beneen dimension la boo xam ne loolu sa baay baax du la ko def barim njàng du la ko def bëgg koo def sa bopp du la ko def yàlla moo lay tëbb ci loolu muril la kiraay yooyu nga jàkkaarloo moom te dootu la um dégg wax bi am na solo baax na waaw muy loo xam ne sëñ Talla euh, man naam xamuma dara mais gis naa ci xar kanamam loo xam ni ku dul zikkar doo ko am loolu nag xëy na du waxu kaw bu buñ paree dinaa ko wax am na lu ne ci moom loo xam ne daal ku dul ci yow loolu moom muy loo xam ne man mën naa koo seede ñu dugg nag ci sëriñ bi rek lan mooy xam-xamu barxóot ñu doog a ñëw ñag ci ummu Moussa bi nga xam ni du ngeen ko wax kenn ndax dégg naa xam-xam la bu borom xam-xam yi di déyante man nag bëgg naa nga déy ko déy ko taala déy ko Abdou Toog ak sama waa ji ñu dendal xam-xamu barxóot laa bëgg nga leeral nañ ko bala ñoo ñëw ci ummu Moussa xam-xamu barxóot xam-xam la boo xam ne mi ngi jóge ci wàlliwu junne yi ni ñuy waxee ni xam-xamu lasraar mi ngi jóge ci nitu yàlla yi xam nga xam-xamu jugul ci ay yonent hmm. bi lasraar bi ci nitu yàlla rek la la jóge xam-xamu barxut nag mu ngi jóge ci awliya u junne yi hmm. waaye dafa teel a ñëw ndax junne yi nekkoon ak yonent bi amoon nañ ko ndax laataa yonent bi sax junne yi nekkoon ak Suleymaan xamoon nañ xam-xam bi yaa ngi dégg hmm. junne ju mel ni lukk yaan wala junne ju mel ni kooka ñoom xamoon nañ xam-xam yi yaa ngi dégg comme xam-xam barxut nag mi ngi jóge ci junne yi junne yi dañ cee garanti woon yu bëree baree bëri wax nañ ni barxut tur wi ak ñaan gi soo ko yoree di sikkar tur di ñaan ñaan ñaan gi mën nga taxaw ci suuf soo xam ne ci biir suuf si or a ci ne ngay sikkar di tudd tudd di ñaan ñaan gi di sikkar comme li ñu la ko joxee ba or bi génnal ba fam ci biir ci biti lu mu sori bépp sëriñ boo dem këram fekk mu ñàkk xamagul barxut wala xamagul ummu Moussa. mu ñàkk te fekk mu ñàkk rek nekk sëriñ boo xam ni mooy ni ñu koy waxee rek. li tax ko mën a classifier fenn. Hmm? Hmm? kooku moo xamagul secret yooyu. secret yooyu kenn du ko xam du ñàkk. daa bari nag ay kamatara. waaw mooy yoo xam dañ ko bind damm ko. yoo xamante ni si nii dañ la dul jox turu mat wi turu barxut bu baax wi sax fi ne ñu ko yor wéru ñi ko yor ñëpp daanaka ñaan gi ma lay bëgg wax rek moom lañ xam. mooy badatu bi bismillahi ruuhi bihi ihtadat ila kasfil asraari bi batinihi intawat wa salaytu bi saani ala xayri xalqihi muhammadun man saha dalalata wal xalat ilahi laqad ahsabtu bismika daahiyan biijin ma ujin jallat fata jal jalat bi samsamin bi tamtamin bi mixyaasin mixyaasin bihi naar uhmidat dégg nga wax damay mën a jàng ñaan gi lépp ndax gars yi <laughs> dina yor te yor naa man secret bu wér bi ummu Moussa yi tamit ba ca wér. Hmm. mooy suq bidu. suq bidu waaw. loolu ab junj la wala loolu la. suq bidu mooy code bi. yaa suq bidu xayaanu bintu luway. yu xayaan ni du mariyatu bintu luway. marsiyatu jannatu masramu xamramu albaa u bintu rahbab bagage yooyu bëgguma ci nee naa dama ko maîtriser yore ma ko teg ne maa yeneen. <laughs> yeneen xam-xam dafa garaaw parce que borom xam-xam bu mag laa dégg mu masoon wax loolu nee na xam-xam bu ñuy déyante la te kenn du ko am te te te gi gesuwul ñu ci damay joxe code bi ñoom defuñu kat yi moom dégg na nga xam ne kii di wax moom naan na téere boobu ndax loolu ab xam-xam la um Moussa <laughs> waaye yonent yàlla Moussa ummu Moussa bu ñu waxee xam-xam bi dañuy jàpp ni ci xam-xam bi ci Moussa la nekkoon nekkuloon ci Moussa ca xeet wala nekkoon. yaa ngi dégg. waaw yonent yàlla Moussa dafa daje woon ak na jamono. Firawna tam cosaanam duñ ko wax nit ñi moom Iblis sa yam Iblis fi mu ne da dégg sayatin sayatin négatif yi waaye lam njëkkoon a defal yàlla laata ñu de dégraté ak daraja jam amoon mosoo ko doo ko dégg fii ci réew mi. Mm-hmm. Firawna noonu. parce que ma dégg naa yahudi ñu gën a tekki ci àddina bi ñoom la. yaa ngi dégg waaw. firaw na alquran dàq na ko li mu def ak ëllëg nga xamante ni si nii fi naari jeexal na ma xaal dina fi abadan la ko firaw na kenn wérantetu ko. waaye nag fa mu àggoon ba jot nguur gaat loolu buñ la ko leeraloon nga xam ci xam-xam la ko teg. Hmm? te pale boobu li tax yooyu yonent yàlla Moussa mënu fa woon a daaneele firaw na ci biir dafa bindoon bismillah ci buntu pale bi kese. yàlla ni ko nag turu yàlla wi nekk foofu moom foofu kenn dafa rayee Firawna moo tax muusaa laata mu mën a rayal Firawna lu ne dugg na ci njëkkoon na a ñëw moom muusaa def fa erreur ba rey nit delluwaat génn mënut a fexe ba rey Firawna keroog boo ko rey génne te géej gala ko rey ndax benn baat muy turu yàlla woowu xeet woon nekkoon ak muusaa nag bu ñu umm mooy xeetu Moussa wax ñoom ñoo amoon xam-xam yooya waaye Moussa moom inna nii ana allahu laa ilaha illa Mhm. turu yàlla la yoroon mhm. yor turu yàlla moo tax yonent yàlla Muusa mën a mbéj bala malaayikal mawti ba ba toj mhm. da nga wax bi kattan gi mu yoroon leeru yàlla la moo tax ma lay xamal ni nit ki mën naa songoo ku ne daan ko waaye bu songee yàlla daan ko baytaalam yi mos naa ko wax fii ci kër gi ni ko Sénégal sëriñ si yi fi nekk muy awliyaa u yéeg yëpp ku la ci tooñ boole koog yàlla nit moom ragalul nit ni moom waaye ragal na yàlla hmm? waaw yàlla nag tënkul kenn ci boppam loo ci amul ci yow la tënkul kenn ci boppam hmm. buntum nit moom dinañ ko tëjal nit waaye buntum yàlla moom hmm. boo ne allahu akbar mu tijjee ko allahu akbar <laughs> dafa mel ni waxtu waa yi waaxu xam naa ni euh, dafa mel ni waaw dafa mel ni daanaka àgg nañ ci 30 ñu mujjee rek taal ci actualité bi euh, Cheikh bi dañu gis ñaari actualité di jomm ñun bala ñu def ak yow waxtaan ba jógee fi te laaj ñu ko ñaari actualité lañu gis ci réew mi mu gën benn bi soxna Aïda Diallo la ak màggal Touba ge coow li ci nekk dana màggale du màggale may nañ ko mu baas ak du beneen bi mooy ñu gis euh, loo xam ni Abdoulaye Diop Xaas doon sa nattaango ci wàllum ñaan takk soxna suñu wax sumbalu bàcc li mu siiw lool ñu gis daal seen mariage dafa siiw lool ci àdduna si ba bi mu ko jëlee guddeem gi njëkk bi ñu yeewoo wax na ni nam jëflanteeg moom ba may na ko un million en tant que ñu daara boo déggee yooyu muy daw ci réseaux sociaux yi ban jàngat la ci def. waaw Abdoulaye Diop Khass moom naa ko. yooyu dafa terre à waaye bu dee soxna si ñuy wax Aïda Diallo. coow bari na ci moom. Mhm. ay kilifaa ngi wax ci moom. ay mbokki taalibe yi ngi wax ci moom. Mhm. loolu amul genn kilifa gu nekk ci réew mi di ni patt comme moom ni ma ko waxee ne nee leen patt moom danañ ni patt ci moom ay taalibeem dañ ni patt waaye nit ñi duñ ni patt ci moom ndax lu mën a xew ci affaire Aïda jàlloo kilifa yi ci réew mi ñoo koy lijjanti te mbiru Aïda Diallo fii la xewee ci suñ kanam dafa am nag lu waral coowam li lépp mooy dañ koo digal nee nañ deful liñ ko digal loolu nag responsabilité bu rëy dafa nekk ci diggante état bi ak kër diine yi ndax mosoo dégg ñun la tarixab Medinatu Salaam mosoo dégg ñu la tarixab Cheikh Béthio mosoo dégg ñun la tarixab kenn ku sant Jàll yoonu murid yoonu Sëriñ Tuubaa la fa ñuy màggalee mooy Tuubaa su xalifa bi nag amee lu mu wax ba yebal ay ñu génn wax ko li gënoon ci gouvernement bi mooy Aïda jàll ci boppam ñu interdit ko màggal ren nii Tuubaa nii feneen ci réew mi ba mu juboo ak ñim amal jaxasoo mhm. ndax bu demoon jégalu ci ñu jégal ko mhm. su lépp ñëwaatee nag ci voie bu normal su boobaa nag état bi door a jël ay mesures libéré ko mais actuellement état bi moo war a téye mbirum ayda Diallo ba coow li dal waru koo bàyyi beneen jafe-jafe di ci fekk askan wi muy indil fitna réew mi. suñ taala daf mel ni xaw nañoo xaaba balaat sax waaye si nañu fi ñuy yëg see jotaay bi xam naa dañ lay bàyyi ñu tàggatoo rek balaa suñ bay yëkkati santaat yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi tedd ba lay satu wasalaam ñaanalaat Serigne Cheikh a Ndiaye alxuraan suñu borom dolli koo taxawu. yeggali mbooleem yéene yi nga xamante ne naalal na ko askan bi. ndax mm-hmm. saa su ne euh, ci ci ci ci jot gi mu am ngir déglu kenn ku ci nekk yitteem. ak mm-hmm. soxlaam nga xam ne xale bu ndaw gone gone mën na koo mën na ko mën na ko mën na koo tàtteel. Mm-hmm. barki dem dama toog ñu toog di waxtaan ba yàgg am ku woo ko ko woo téléphone. bi mu ko woowee téléphone doon soxna su baax. waaye ne ko man daal sa photo laa gis. sa photo bi neex ma rek ma fexe ba jël numéro bi ne naa la woo waaye bi mu koy woo mi ngi mi ngi ragal xam naa mi ngi naan kilifa gi may woo bu ma ko woowee nga xam ne xaw naa daw res daw res moom ndax bi mu wootee yeggalewul waxam dafa coupé sëñ bi dama ko bàyyi noonu nga xam ne jëlaat téléphone am yëkkati ko moom woowaat ndaw si soññaat ko waxtaan waxtaan moom ba indiwaat ko ba xam soxna soosu noonu jafe-jafe yi mu nekkoon ba wër potoom ba gis ko ba nam ko xare nga xam ne kon kooke mooy li may wax saa su ne delloowaat doomu aadama bi ci wàccuwaay wi ko suñu borom jox doon li nga xam ne mooy yitte majeur te bi nga fi dalee ñëw ak léegi gis nga ko bu waxtaanee ba ba chaque jour mi ngi soññaat doomu aadama bi ci mu mu xamaat boppam xam li ko suñu borom cëraleel xam li ko suñu borom darajaaleel ba bañ a xeeb boppam kon loolee ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal sama borom doole ko taxaw waaye mboolem mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi koy suivre doon ay soppeem doon ay am di jàmmam tam kenn ku ci nekk la mu tey doon soxlaam yal na ko yàlla sama borom jàppandalal ci daraje Seydina Muhammad barke bi la bu baax a suñ borom taxawu la sàmmal la baat bi ba yëgali mboolem yéen ay caméraman yeeg techniciens yeeg ñëpp wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax macha allah ak waa koñ bi tam ndax fan yi saraxu gëléem gi moom dëkk bépp génnoon nañ fi mu toll nii ah, koñ bi fi mu ndax xam naa ne gëléem lañ mosoon a gis waaye seex bi daal def na fi lu doy waar loo xam ne àdduna yëpp a ngi koy waxtaane macha allah rabbi am na ci solo tabaarkalla ay ci mi ngi noonu a euh, mbokk yi Euh, di ñaan yàlla ñi ci am ay jafe-jafe yàlla teggi leen ko ñi am la ñuy yóotu yàlla jotale leen ko di ñaanal itam ñi ci biir réew mi yàlla sàmm leen aar leen te yéwénal seeni yëf màggal gi ñu jëm yàlla na yàlla oyofal yëpp ci wàllu mbas mi ak wàllu yoon wi dembeeg dikk beeg jëflante yi ñi ci soxlay koppar yàlla danañ ko yàlla yombalal maa ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ci yeneen i jamono incha allah ayca jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu jaajëfal sëñ taala bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel gi euh, gërëm sëriñ bi ci taxawaay bi ndax ni ko taala waxee noonu la amee ñun lii ñu sol tey moo ñu solal euh, dalal ñu euh, berne ñu waaye waxtaan ak ñun ci alxuraan waxtaan ak ñun ci diine delloo si suñu xel ci lu bare bari ni ko taala waxee ñun daf ñuy woo ci lu bokkul ak émission bi waxtaan ak ñun ci leneen sax lu bokkul ak ci wàllum faj ak ñaan ak émission ci leneen loo xam ne luy defar doomu aadama la di la delloo si bu baax a baax lépp nag mooy nit la te xam na fan lay jaarale doomu aadama bu mën ko yegsil ci digganteem ak boromam mu wax lu ama am solo nag muy nit mooy tëjal buntam nit mais yàlla moom foo nekk allahuma rek ubbi na ay buntam kon nag euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax gërëm équipe technique bi ñu àndaloon sëñ Talla muy Abdou Top ak waa Dias ji TV Samba ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax lépp lu jub ci waxtaanu yàlla la lu ci dëng ñun la joxante dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu